qu'on ne baissera jamais le bras tant que ce problème n'est pas réglé. de sàmm jukko dans la rue ce dimanche c'est pour demander la criminalisation de l'homosexualité donc pour euh, demander la de l'homosexualité à Sédhiou marche gigantesque hier des populations contre la montée puissance de l'homosexualité dans la région les religieux étaient en ligne de front de ce combat et demandent à ce que de telles pratiques jugées délictueuses et contraintes aux bonnes mœurs soient criminalisées Correspondance depuis chez Djoumoussa Dramé. C'est une foule immense qui a déferlé ce samedi après-midi dans les rues de la capitale du Pakao pour dénoncer avec véhémence la montée en puissance de l'homosexualité dans la région de Sédou et par-delà dans tout le pays. L'initiative porte les empreintes de l'association Andesamo Dikoyi et Sédou dit non à l'homosexualité. Mamadou Lamine Souane MLS est l'un des organisateurs. Sédou est en train de se manifester par rapport euh, à ces pratiques barbares euh, ce geste. Cause pour laquelle on s'est levé, euh, tous debout comme, un, comme un seul homme, à ce qu'il veut faire, c'est-à-dire essayer de cela. La population ne serait pas d'accord à ça. qui sont vraiment contre aux bonnes mœurs. Au nom de tous les imams et guides religieux de la région de Sédhiou, Cheikh Ousmane Sissé, imam ratib de la grande mosquée Ahmad de Sédhiou, fustige ces Protester vigoureusement contre toutes les pratiques anti-valeurs en cours. Il s'agit des LGBT, lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels, qui sont les comportements bannis et condamnés par toutes les religions révélées. Ces pratiques déviantes et maudites par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces religieux demandent que ces pratiques d'homosexualité soient criminalisées. Nous demandons, nous les imams, ulama et chefs religieux de la région de Sédhiou à l'État, que ça soit criminalisé au niveau de l'Assemblée nationale, comme des autres criminalisations interdiction de la pratique de l'homosexualité dans la région de Sédhiou, l'imam ratib de la grande mosquée El Hadj Boubacar Dramé a crié et décrié en invoquant le nom d'Allah subhanahu avant de se fondre en larmes. A relevé enfin que cette marche s'est ébranlée du rond-point de la Poste pour s'estomper au terrain de handball en passant par le marché central et le rond-point Jules Kounda sans heurts et sous l'encadrement de la police. PIT, partie de l'indépendance du travail en conclave à que le bureau politique réuni hier va céder la place au comité central ce dimanche au menu de discussion d'analyse de l'état actuel du monde, la tenue du congrès prochain et les élections locales. Sambassi, le secrétaire général du parti de l'indépendance du travail que nous écoutons avec euh, des paramètres absolument originaux qui méritent une réflexion profonde pour arrêter des décisions opportunes pour aider à faire traverser au mieux euh, cette période qui est une période d'une particulière complexité. Nous avons eu le bonheur de voir que nos camarades sont venus des différentes régions du pays et qu'à leur habitude, ils sont investis dans le champ de la réflexion. Notre espoir est grand qu'à la sortie de nos conclaves, nous allons tracer une voie qui devrait être proposé à nos autres compatriotes pour essayer, avec eux, d'aller de l'avant. Ce dont nous discutons, c'est d'abord euh, du monde tel qu'il va, de l'état du monde. Parce que tant qu'on ne comprend pas la réalité du contexte dans lequel on baigne, il est difficile de trouver une voie qui est la bonne. Ensuite, euh, cette euh, analyse du contexte ne va pas être simplement une analyse qui va porter sur l'échelle internationale. Nous sommes obligés de regarder Et à la lumière de ce qui se passe au niveau euh, international, donc mondial, et au regard de notre continent, nous allons euh, essayer de relire ce qui se passe chez nous, en mettant l'accent sur un certain nombre d'événements qui sont des événements marquants dans la période, dont nous avons une compréhension, nous allons la partager. Tout cela nous mènera maintenant euh, sur les prises de décision par rapport euh, à la tenue d'un congrès prochain, parce que, vous le savez, notre parti est un parti qui tient au renouvellement régulier de ses instances. En 2010, Maguette Thiam prenait le flambeau des mains d'Amad Dansoko. En 2016, Sambossi prenait le flambeau des mains de Maguette Thiam. Il a fait un mandat de cinq ans. Il faut bien que nous pensions à tenir un congrès. Il y a également l'échéance des élections territoriales locales sur lesquelles nous ne pouvons pas évidemment manquer de discuter. Il y a bref un ensemble de choses, la vie interne du parti et le comité central demain prendra certainement des décisions importantes pour le parti mais également pour notre pays. Euh, dans cinq mois, la cité Djilimbey de Yoff va présenter un nouveau visage et la voirie sera totalement rénovée. Un projet financé par la mairie d'un coût global C'est parti pour cinq mois de travaux de la voirie de la cité d'Ilimbay de Yoff, un des projets de la commune qui tient à cœur le maire Abdoulaye Diouf euh, La commune de Yoff est une euh, commune en mouvement parce que la commune de Yoff s'inscrit dans la compétition des territoires. C'est pourquoi notre projet d'éclairage de manière systématique de quartier de notre commune est en route. La sécurité aussi, nous travaillons là-dessus. Le pavage systématique Nous sommes en train de travailler sur les espaces publics euh, à aménager. Le stade sera aussi livré dans trois mois. Plus de millions ont été dégagés par la mairie pour financer ce projet, selon le directeur du FERA, Mamoudou Sen, qui rassure sur la durée des euh, travaux. et la supervision et le contrôle. Parce qu'il faut s'assurer de la qualité, même si l'entreprise est une entreprise expérimentée, il faut également avoir un œil sérieux qui va suivre pour le maire. La durée normale du projet, c'est 5 mois. Mais compte de l'expérience qu'on a avec cette entreprise, je suis presque sûr que dans 4 mois, ce projet pourrait être Ce lancement des travaux de la voirie de la cité d'Ilimbaye est un ouf de soulagement pour les populations. Adia Marise, présidente des femmes. Aménagement cité d'Ilimbaye, dañ ko soxla woon bu baax ndax suñu tëli dafa toj, suñu voirie di dara baax. Yoff, parmi les top 5 meilleures alors des actions sur le terrain sont nécessaires pour atteindre cet objectif affirme Diouf Sarr Autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs de Thiès, le ministre de l'Artisanat offre une session de renforcement des capacités en éducation et finance à 120 bénéficiaires. Docteur Amadou Ndiaye entend poursuivre le partenariat avec l'installation de plateformes d'activités Thiès Babacar Ndaw Pour le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel, initiateur de cette session de formation, la gestion financière restait jusqu'ici le maillon faible de l'entrepreneuriat chez les femmes et les jeunes. Docteur Pape Amadou Ndiaye. L'éducation financière est quelque chose d'extrêmement important. J'ai beaucoup côtoyé les femmes et je sais qu'elles sont très ambitieuses et qu'elles sont travailleuses, mais elles n'arrivent pas à épargner. étaient les premières à être formées dans ce cadre de l'éducation financière. Je vous exhorte à aller à la base pour inspirer les autres femmes. Vous devez être des exemples. Il ne faut pas prendre vos attestations et les mettre dans un tiroir. Vous devez les utiliser pour convaincre, être engagé aux côtés de vos sœurs pour changer la mentalité. Le jour où les femmes changeront de mentalité et sauront que Elles sont capables de soulever des montagnes. Rien ne et j'en suis persuadé. 120 jeunes et femmes leaders en 48 heures en éducation financière, le facilitateur entend ainsi poursuivre son partenariat avec ces femmes et jeunes de Thiès. Nous continuer à travailler formation en éducation financière. en place des plateformes, femmes pourront venir. On va vous accompagner pour que vous puissiez avoir l'accès aux matières premières. Parce que les financements, tels que vous les entendez toujours, je veux des financements, En fait, le plus important, c'est pas le financement en tant que tel. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce financement. On va vous accompagner pour l'activité. Une formation assurée par la Chambre des métiers de Thiès, le ministre de l'Artisanat a invité les récipiendaires à le gaspillage et à privilégier le consommer local. Babacar Ndaw Thiès Sud FM. Babacar Ndaw formation de dix jours qui avait réuni trois trente jeunes artisans et artisans de la communauté de Saint-Louis ils ont tous reçu leur attestation de cette formation qui était axée sur le solaire photovoltaïque et l'efficacité énergétique sur l'initiative du conseil communal de la jeunesse correspondance depuis Saint-Louis Yves Ils sont en tout une trentaine de jeunes et artisans de la commune de Saint-Louis à avoir bénéficié de cette formation de 10 jours en solaire photovoltaïque et efficacité énergétique initiée par le conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis. Une formation qui arrive à point nommé à en croire Aïda Mbaye, première adjointe au maire de la commune de Saint-Louis. C'est avec fierté que je représente le maire à cette cérémonie importante de remise de diplôme à 30 jeunes Nous, au de saint avons surtout besoin de ça. Vous avez vu que nous avons aujourd'hui des lampadaires solaires partout à Saint-Louis et il faut entretenir ces lampadaires. Mais nous avons d'autres projets également solaires et nous aurons besoin de ces jeunes. par le président conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis, Adam Kandialo, pour l'interpeller par rapport au devenir de ces différents récipiendaires. Notre rôle, le conseil de la jeunesse, c'est d'encadrer les jeunes, c'est d'orienter conseiller, etc. etc. Bon, l'essentiel, euh, je lance un appel euh, à Madame le maire, la commune de Saint-Louis. On a formé les jeunes en solaire. Il faut que le maire réfléchisse pour les insérer au niveau communal, pour les entretiens des panneaux solaires. Et en tant que conseil communal de la jeunesse, on va essayer de réfléchir pour mettre en place des GIE de chaque groupe. Cette formation a été rendue possible grâce à l'appui et l'accompagnement de la coopération allemande GIZ, mais aussi au programme énergie durable, renseigne le conseiller technique Abdoulaye Gueye. Nous accompagnons euh, ces, ces structures-là à outiller les jeunes dans ces métiers-là. Parce que quand on veut développer un domaine, il faut que l'on outille les ressources humaines de ce domaine-là. D'autres formations sont également prévues toujours dans le but d'accompagner ces jeunes de Saint-Louis pour leur insertion dans le monde du travail. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Euh, l'emploi des jeunes, la formation et l'orientation scolaire a été débattue à la journée d'intégration des, euh, des étudiants euh, amicales et élèves et étudiants, donc résidents de, de Tateguine à Dakar, Robert Ndour, que nous écoutons le président. Il est avec Birama Ndiaye. Nous avons choisi euh, de faire une communication sur les questions liées à l'emploi et à l'auto-emploi à l'occasion de ces journées pour montrer aux jeunes élèves et étudiants et surtout cela en présence massive des élèves du lycée d'Ongoye, par ailleurs membres de l'amicale, parce que les questions de l'emploi et de l'auto-emploi sont au cœur du débat. Ils l'actualité au Sénégal et donc en parler est une occasion pour les élèves et pour les étudiants pour savoir les tenants et les aboutissants de ces questions d'emploi au Sénégal. Parce que la plupart d'entre nos jeunes ne savent pas exactement comment chercher un emploi, quelles sont les formations requises pour avoir une association e professionnelle. Donc l'occasion nous est donnée aujourd'hui de savoir là où taper pour décrocher un recrutement ou une association e professionnelle. Alors aujourd'hui vous avez parrainé euh, panel, mais quand même au conseiller des collectivités le choix du parrain, je crois que ça se justifie tout simplement par le fait que M. Ibignan a toujours été euh, un collaborateur depuis le début euh, des activités de l'AMEN. Des années durant, il a pu apporter des contributions très conséquentes euh, pour la réussite de l'amicale. Alors, cette année, quand il s'agit d'organiser les journées d'intégration, et qui nécessitait des factures euh, très très très très élevées, bon, nous nous sommes rendus compte qu'il serait intéressant quand même de lui saisir et de lui solliciter afin, comme à l'accoutumée, qu'il vienne nous appuyer pour la réussite totale de ces activités-là. Et puis le ministre du Pétrole et des Énergies a présidé samedi à Saint-Louis un comité régional de développement sur les projets pétroliers et au Sénégal. Sophie Gladimacier assure les acteurs de la pêche par rapport à leurs craintes liées à l'exploitation prochaine du gaz. Ces propos sont recueillis par Yves Tendeng. C'est la fin d'une série de rencontres que nous avons initiées avec les acteurs qui sont sous l'emprise des projets pétroliers. Là, nous sommes à Saint-Louis pour le projet GTA, donc un projet qui est entre le Sénégal et la Mauritanie, pour échanger et puis discuter avec les habitants, mais également les collectivités locales qui sont impactées par ce projet. Mais ce qu'on peut retenir, c'est surtout le secteur de la pêche qui a des craintes. Mais nous avons pu les rassurer pour leur dire qu'aujourd'hui, des dispositions seront prises pour qu'il ne soit pas impacté comme il le pense, d'une part, mais également il y a les résultats des études d'impact environnemental qui ont été faites. Je pense qu'également il y avait le problème de la formation parce que vous savez, a l'UGB qui est là, mais le directeur général a promis de les rencontrer, de discuter et de voir quelles seront les passerelles qui pourraient être euh, prises pour que l'INPG et l'Université de Saint-Louis puissent travailler la main dans la main. investissement quand on parle de pétrole et du gaz on parle du contenu mais écoute le contenu c'est pour parler un peu par rapport au concept de la RSE la RSE on considère que ce sont des sociétés qui viennent avec leur bon vouloir faire des propositions aux populations le chef de l'État a pris sur lui de mettre ce contenu local et qui sera élargi d'ailleurs sous peu à tout le secteur extractif là aujourd'hui c'est simplement le secteur du pétrole et des gaz qui a un contenu local et donc local aujourd'hui va permettre à des existe déjà. Et donc, au moins, tout ce que les sociétés pétrolières, mais les activités connexes aussi vont engendrer, resterait dans le pays. Et donc, ce serait une croissance économique de plus, sans compter également les sociétés qui, aujourd'hui, vont être mises à niveau. Et vous voyez, par rapport à la construction des caissons, ce sont des Sénégalais aujourd'hui qui le construisent. 1700 employés pour la construction de ces caissons. De façon indirecte, donc, l'économie de notre pays Et puis, célébration de la journée internationale de la biodiversité, l'aire marine protégée de Somone Prédembourg a accueilli l'événement. Le thème « Nous faisons partie de la solution pour la nature » justifie le choix du site Euh, de Somone compte tenu de ses valeurs écologiques, socio-économiques et des services écosystémiques rendus aux communautés à travers un nombre important d'emplois créés. Le Sénégal a consenti beaucoup d'efforts dans le cadre de la conservation de la biodiversité, la preuve et l'implantation des aires marines protégées dans ce pays. Nous écoutons à ce propos Abdou Karim Sall, euh, le ministre de l'Environnement qui a présidé, donc euh, président de l'association Agir, association Euh, pour la gestion des ressources naturelles intégrées de l'environnement au micro de Moustapha Sall. Aujourd'hui, euh, on est là pour récupérer le troisième prix qu'a gagné Agir par rapport à la conservation de la biodiversité, par rapport à la journée. Donc on félicite les, les, les, les initiateurs à travers la DAMP, la, aussi la direction des aires communautaires protégées, aussi à travers la réserve de, de Somone qui a organisé la journée. Donc on est vraiment content d'être euh, de faire partie des gens qui ont, qui ont gagné ces, prix de la conservation. Donc à travers l'association Agir, on remercie toutes les populations de, de Somone et tous les gens qui ont organisé cette journée. Les difficultés, c'est un peu, on revoir un peu le système de financement de ces, des organisations parce que par exemple, nous, au niveau de l'Agir, on, fait une, on fait du bénévolat. C'est une association qui, fait presque une trentaine d'années par rapport aux, aux, aux personnes sont autour de Agir. Mais ça fait euh, un an qu'Agir est né, mais on n'a pas assez de moyens pour, pour euh, vraiment faire nos, nos activités, c'est-à-dire les ensemencements des arches, c'est-à-dire les suivis tortues, c'est-à-dire les reboisements de mangroves et les récifs artificiels, quelques activités qu'on est en train de faire pour mieux conserver la biodiversité, pour mieux conserver les ressources qui sont au niveau de Jawal Fayut, surtout les biens et services de la mangrove et de Et puis l'actualité que nous, nous, parlons de sport à présent avec euh, la canne de beach soccer. Les, le coup d'envoi sera donné aujourd'hui. Le Sénégal, pays hors détenteur du trophée, jouera contre l'Ouganda. Toujours en football dans le cadre de la Coupe de la Confédération africaine de football, les quarts de finale retour. Le Sénégal, le Giraffe de Dakar qui reçoit ce dimanche à 16h l'équipe de Coton Sport de Garoua à l'aller. Le Giraffe avait euh, perdu 1 à 0 du côté du Cameroun.

Cette initiative du mouvement pour la défense de la démocratie s'est déroulée à Bignona en présence des leaders politiques, des membres de la société civile, entre autres Ben Michel Kanfoudi. La prière a eu et les populations de Bignona se sont fortement mobilisées pour répondre à l'appel du mouvement M2D, euh, qui a tenu cette journée de recueillement et de prière mémoire euh, des 13 jeunes qui sont tombés lors des manifestations de soutien au député euh, Ousmane Sonko. Plusieurs leaders étaient euh, à Ziguinchor, parmi ceux-là les députés Mame Diarra Fam, Aïda euh, Cheikh Bara Dolly, mais également des responsables politiques comme le maire Cheikh Gueye, l'ancien ministre Cheikh Bamba Dièye également et des responsables de mouvements de la société civile kilifa euh, de son vrai nom Landing Desane mais également Mortala Gaye appelé euh, Nit Doff Guy Marius Sagna était également de la partie donc à l'issue euh, de la journée de prière dirigée par le représentant de l'imam Ratib et général El Hadj Fa Ousmane des leaders politiques et de la société civile se sont relayés au micro et à l'issue donc de leur déclaration présentation. Discours euh, final a été lu en euh, par euh, le leader de la plateforme Aar Li Ñu Bëgg en français et en wolof par le député Aïda Mbodj. Dans cette déclaration, les leaders du mouvement M2D ont décidé de sceller un pacte pour poursuivre le combat, ce combat d'ailleurs qui a valu la mort de ces 13 jeunes. Ils ont également décidé de ne plus euh, faire des déclarations allant dans le sens de créer une désunion nationale, mais également ils ont euh, promis aux jeunes de Bignona euh, de poursuivre le combat de la démocratie, de poursuivre le combat, en unité, en union pour justement rendre hommage à ces victimes et poursuivre justement tout le vœu des populations sénégalaises. Voilà ce qu'on pouvait retenir

train de faire, c'est du faux. sont venus occuper nos terres de façon illégale. La population du Lougar s'est réveillée pour dire stop. Parce que déjà, ce qui se passe, on leur a donné une superficie de 80 Mais ce qu'ils exploitent là-bas, ça fait pas 14 hectares. Le décret est clair pour dire qu'il y a une contradiction par rapport à ce qu'ils disent. Mais c'est pour dire aussi que cette intimidation ne passera pas. La population de Dougar est prête et debout. Même si toute Pour rappel, les 22 jeunes qui étaient arrêtés lors des affrontements avec les forces de l'ordre dimanche dernier ont été tous placés sous mandat de dépôt. Joute électorale de janvier 2022, Barthélémy Diaz déclare sa candidature pour la mairie de Dakar. Toutefois, le maire de Mermoz Sacré-Cœur dénonce les tentatives d'intimidation et de rétention de fonds dus à sa commune et appelle l'opposition à sortir de sa léthargie. Amadou Moustapha Dian. Intimidation, tentative de liquidation politique et rétention de fonds, la pression s'accentue sur Barthélémy Diaz, candidat déclaré à la mairie de Dakar qui dénonce une extorsion étatique de fonds à hauteur de 1 milliard de francs CFA sur 3 ans afin d'asphyxier sa commune en de nuire à ses ambitions politiques. À ce pouvoir politique, votre intimidation ne passera pas. Ce sera le tribunal, ce sera la cour place de Dieu les candidats à l'élection. Et taxe sur les ordures ménagères, la TFB, taxe sur le foncier bâti, autant de rentrées financières que l'État retient à la source. On ne peut pas justifier aujourd'hui qu'une commune comme Mermont-Sacré-Cœur, le cumul des taxes que l'État du Sénégal à la commune de Mermont-Sacré-Cœur, c'est 687 parce qu'on D'ailleurs, le maire signale que curieusement, à l'approche des élections locales, la Cour des comptes a envoyé des enquêteurs après 12 ans d'exercice, ironise-t-il. semble qu'il soit arrivé 12 ans après sa prise de fonction. Mais comme c'est à la veille des élections, je souhaite à la Cour des comptes la bienvenue dans la commune de Vermont-Sacré-Cœur. Mais je le dis tout de suite, personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Vermont. Il a un point de non parce que les gens de cette façon de faire la politique. Devant ses collègues maires de Grand et de Fan.e, Barthélémy Diaz a indiqué que découpage administratif est aussi une autre arme non conventionnelle du pouvoir qui passe son temps à briser les ambitions politiques d'opposants tels que lui.

Et c'est pourquoi nous plaidons pour l'affectation et la mobilisation des 100 milliards de dollars qui devront permettre de faire quoi D'abord, d'acter de flécher pour l'acquisition des vaccins. c'est une urgence sanitaire qui peut pas attendre. Mais également d'assurer le financement de la relance économique sur le continent. Et la destruction sera inévitable. Mais la jeunesse a besoin de formation, d'emploi. L'économie elle-même, les secteurs ont besoin d'argent. avec des mécanismes convenus, assurer le financement de la relance, restructurer et alléger la dette commerciale. Immigration irrégulière. Plus de migrants ont forcé le passage de l'enclave espagnole Ceuta, située dans le nord du Maroc, un assaut jamais vu. Omar Baldé. C'est du jamais vu. En à peine 48 heures, environ 6000 migrants ont déferlé sur Ceuta, l'enclave espagnole située dans le nord du Maroc. Des arrivées impressionnantes de migrants marocains et subsahariens se poursuivaient Cet assaut historique s'est fait à la nage en faveur d'une marée basse, mais aussi à travers les montagnes. Visiblement, les gardes-côtes marocains ont volontairement laissé passer cet afflux de migrants constitués essentiellement de jeunes. Conséquence, les grandes villes marocaines du Nord se sont brusquement vidées des immigrants subsahariens qui arpentent habituellement leurs grandes artères. Les ressortissants sénégalais figurent probablement parmi cette vague de migrants qui a forcé le passage, même si, à l'heure actuelle, aucune donnée officielle ne le confirme. Cet assaut sans précédent est apparemment la conséquence de la colère du Maroc suite à l'hospitalisation en Espagne du leader du Front Polisario Brahim Ghali. Après avoir longtemps joué le rôle de gendarme de l'Europe, Rabat montre ses muscles et plonge Madrid et l'Union européenne dans une situation fort embarrassante. En milieu de semaine, les migrants ont fini par être plus de 8000 à rejoindre Ceuta, mais les autorités espagnoles en ont rapatrié un grand nombre en fin de semaine. conflit israélo-palestinien forte mobilisation des religieux politiques activistes sénégalais ils étaient tous dans la rue ce vendredi pour répondre à l'appel de l'Alliance nationale pour la cause palestinienne ils ont tous dénoncé ce qu'ils qualifient de génocide perpétré par Israël contre le peuple palestinien Babacar Samb les couleurs palestiniennes ont flotté ce vendredi sur l'obélisque le Sénégal dans toute sa composante répond l'appel d'un peuple frère. Religieux, politiques, jeunes, femmes, tous unis pour dénoncer ce qu'ils qualifient de génocide ou crime d'Israël contre les musulmans. Ce qui se passe aujourd'hui en Palestine n'est que la phase visible d'une guerre féroce et dévastatrice menée contre la Oumma islamique. Déclare Mame Makhtar porte-parole des manifestants. Le devoir légal et moral exige que le monde entier, particulièrement les pays musulmans, soutiennent le peuple palestinien qui est soumis à un Plus de 230 Palestiniens tués, une soixantaine d'enfants qui ont péri dans ce conflit. Soxna Khadijatou Sow, porte-parole des femmes, dénonce. moo ne benn bakkan ci France bu ñu ko Sénégal ñëpp jóg àdduna wërngal képp jóg taxaw xanaa bakkan du Présente également dans cette manifestation, la société civile a son mot à dire. Mar Diagne, leur porte-parole, précise que lorsqu'il s'agit de défendre la dignité humaine, le Sénégal ne badine pas. Nous ne serons jamais complices de crimes contre l'humanité. Nous ne serons jamais silencieux. Pape parle pour la jeunesse sénégalaise. Nous condamnons avec véhémence et jusqu'à la dernière mesure ces actes barbares que de 70 ans. Marius Sagna de Frappe France Dégage. Nekk État du Sénégal bëgg a yemale Palestine. ak Israël loolu duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg. Des milliers de Sénégalais et une quarantaine d'organisations, tous derrière l'Alliance musulmane pour la cause palestinienne, pour apporter leur soutien au peuple palestinien. L'ambassadeur de la Palestine, Safouat Ibrahim, était également présent à cette manifestation. Nous partirons pas de cette terre. Ainsi prend fin la rétrospective des faits marquants de l'actualité de la semaine sur Sud FM Sen Radio. Rendez-vous dimanche prochain. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8 heures. Abdoulaye Diop. moo nekk ci kàddu gi Assane ci xarale gi ñu leen di wax asalaamaaleykum di leen dal jàmm ci xibaar yi ñu daal di koy dooree ak ca Dougar ginnaaw ba ñu tegee loxo fukk ak juróom-ñeenti ndaw doxu ñaxtu bi ñu jàppoo jàppoon nasoon ko niki tey ji ci dimanche gi daan nañu koy dàkk ba jimmi jamono laata procès boobee di daal am ba noppi ak seenub ndaje ak gouverneur bu Ndakaar dugaar nag ne xam le ni nopp ñu ngir bàyyi dara mu sedd fekk rek seen jafe-jafe googee nag jeexul ki moom moo yore seen kàddu ñu teelu ko ak Denisia Samb. Ah, doxu ñaxtu ki nga xam ne moom la ñu jàppoon ci dimanche bii di ñëw muy dimanche 23 mai 2021 damay yëgal ñépp ne marche boobu kenn annulé ko mais dañu ko reporté ci beneen date xaarandiku résultat yi nga xam ne moom mooy soxee ko ci acte bi nga xam ne war nañ ko appeler xale yi. ak ndaje bi nga xam ne gouverneur de Dakar oote na ko pour que ñu waxtaan ci affaire pick-up donc ñu ngi jéggalu ci ñëpp ñoo xam ne jàppale nañu plus particulièrement ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy mbokk séeréer saafara yi ak ñi nga xam ne mooy les mouvements comme Y'en a marre ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen partenaire donc ñu ngi leen di assurer ne ñun tant que ce problème réglé ko duñu mas a wàcc mukk suñu loxo. lépp loo xam ne dinañ ko war nañ ko def dinañ ko def ba mën a am ndam ci li nga xam ne moom la ñuy xeex ngook ñu wax ci mouvement And Sàmm Jikko Yi ñoo ñoom it dinañu wàcc tey ji ci dibeer gi jiy mbeddi ndakaar yi nag ngir rek mën a sàkku ñu daal di criminaliser lu jëm ci wàllum homosexualité ba tax na dañ see xaatim ay pétition teg pression ci nguur gi mouvement bu la mu bëgg rek euh, mooy euh, góor a góor wala jigéen ak jigéen yi sëy loole nag ñu bañ koo jàppee ak déli kot ñu fexe rek ba mu doon crime ba tax na ay daanub kaso ñu ñu bëgg ñu jëlee ko ci juróomi dem ci fukki at ñu mën ko cee teg di fàttali borom ñaari tur yi di wàllum homosexualité nag fii ci Sénégal ab délit d'acte contre nature rek la ñu ko daal di eh, jàppee ni kii dem sa ci Sédhiou moom amal nañu rek doxu ñaxtu jëm ci xeex loole di borom ñaari tur yi ci seen gox boobe ñi nga xamante ni ñoo di yor diine ga foofe nag ñoom ñoo jiitoon ci boobu lépp xeex di sàkku ci yooyu lépp jëf nga xamante ni jekkul rafetul nag ñu daal di koy dakkal waaye tamit daal koy criminaliser Moussa Dramé. ci gaaw gi ci ngoon mboole mu takku takku moo amal dox ñaxtu ci yoonu Sédhiou loolee di ñàkk raftu loo xam ne moo di it borom ñaari tur yi di homosexualité góor a góor di sëy wala jigéen ak jigéen di ànd di sëy nee ñu it mu ngi frankulaay bu baax fii ci diwaanu Sédhiou ak it ci réew mi wërngal kàpp ñu taxaw fas yéene jaflante ak ñoom bokk na ci it kuréel gi di ànd sàmm jikko yi ak it Sédhiou di noa homosexualité ci ay leeral dañ ci teewlu El Hadj Mbacke Badji te neexul benn diine neexul benn nit ku baax neexul suñu aada neexul suñu coxaan mooy mbirum góor jigéen góor yi di sey ak morom góor yi ak mbirum lesbienne loolu lañ jóg tey di ko xeex di remercier d'abord imam bi jóg ci ak euh, mbooloom imam yu nekk biir euh, région de Sédhiou Cheikh si Cissé nekk imam ratib jumaa bu mag di nekk ci ama ci montagne rouge ci turu mbootaay kilifa di nekk imam yi ñàkk nañ rafetlu li ni mel dox ñaxtu ci lu jëm ci wàllu boroom ñaaru tur yi lu nga xam ne mooy homosexuel wala lesbienne ci LGBT yépp la ndaxte sëy góor ak góor wala jigéen ak jigéen kenn rafetalu ko ci réew mi mboolem diine yi nga xam ne bàyyeeku nañ ci suñu borom bi subhaanahu wa taala def ko ñaawlu looloo tax ñun waa kër diine yi imaam yi ak borom xam-xam yi yépp ñoom ñoo jóg tey di def dox ñaxtu boobu ñun de ànduñu si tey ànduñu ci ëllëg kilifa diine yooyee ne ñu ti nguurub Sénégal war na ko criminaliser maanaam indi ay daan yu metti ci ñuy def li ni mel ñu ñaan suñu état bi mboolem yi nekk ci biiru état bi ñu criminaliser loolu ci assemblée national lii defa bon baaxul ci ñun baaxul ci suñu askan suñu société bi imaam ratib jumaa bu mag bu Sédhiou di El Boubacar Dramé moom it mu ngi woon ci kanam di ñàkk raftulu loo xam ne it ne ñu it frankulaay boo xam ne li mel mu ngi amal fii ci diwaanu Sédhiou ci turu yàlla boo xam ne doon na ko yëkkati bu baax subhaanahu wa taala daf si yuuxul lu bare ba turu ay rongoñ ñu fàtt ne rek dox ñaxtu boobu la ñu ngi koy dooree ci rond point poste jaaree ko ci marché central rond point Jules Koundar laat nag ñu koy ndarke ko ci terrain handball amal ko ndaw yi police Sëñ Jokko ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Moussa Dramé cant ak ngërëm ñeel na la ñu wax ci wàllum politique ak la xewoon démb ca Bignona ñu seetlu nag ñu bëri ca ku jóge daan nañu fay daal di dajaloo ginnaaw ba ñi rek ñaanal ñi nga xamante ni ñoo lor woon si rek manifestation yi ñu di meeru mars bi ñu génn ñàkkoon ci seen bakkan loolee nag taxoon na ñu daal di fay jël ay dogal bokk na ci rek daal di taxawalaat yeesalaat bu baax lépp lu jëm ci wàllum république mu am cëslaay lii di ak ak yelleef tamit yeesalaat. déggaat euh, banqaas yi loole nag euh, joxaat leen gëdd gi ñu war ba tax xamante ni dinañu teg euh, citoyen ci xolub boobu lépp yooyu lépp banqaas loole nag mooy déclaration bi nga xamante ni MDD daal nañu koy génnee ginnaaw seenub ndaje boob boobu mu yem ak si jamono yoo xamante ni nag lu jëm rek ci banqaasu parti bi di pour l'indépendance du travail di PIT ñoom nag dinañu daje ci Rufisque ni ki tey ji bureau politique bi war a dikkaat Euh, rek euh, ci dimanche bi ginnaaw samedi gi nag lañ fa nar waxtaanee bokk na ci rek daal di càmbar rek xew-xewu àdduna waaye tamit euh, amalub congrès bi ñu war a amal ay bi ñu ñu daal di dëdmal waaye tamit élection locale yi ñu daal di dëdmal ci weeru janvier Samba si di secrétaire général parti boobee la ñuy teewloo ak Denisia Sambo. waaw sant yàlla mi ñu may tey ñu woo suñu kuréel bi ñu naan bureau politique dajale ko fas yéene suba jàmm bu ñu si yàlla yóbbee dajale comité central bi. muy kuréel yi nga xam ne diggante ñaari congrès ñoom ñoo yor euh, parti bi di ko euh, gidi di ko yóbbu si kanam di wax lan la war a jëfee ak nan la war a taxawee. am na ñu mbégte gis ne camarades yi jóge nañu gox-goxaan yëpp ñëw nañu teew nañu te niñ ko faral di defee dinañ waxtaanee taxawaayu àddina tolluwaayu àddina ndax nit kuy yëngatu ci politique bu fekkee ne xamoo. ci addina bi nga nekk déjà décision yi ngay jël boo moytul day nekk décision yu des dinañu waxtaanee addina bi ni mu doxee ak lu mu laaj dinañu waxtaan tolluwaayu Afrique mu may ñu nag ñu bàyyi xel bu baax a baax si nekkinu Sénégal xam ngeen ne réeru leen mbir ne am na lu bari lu fi jot xew lenn lii ci mbas mi la weeku li ci des mooy euh, yi fi nga xam ne xew na fii nga xam ne yu ñuy métti la ci lu yàggul lool ban jàngat lañ ci war a am ban taxawaay lañ ci war a jël loolu dinañ ko waxtaane bu si defee bu si yàlla yóbbee nag comité central bi dina waxtaane itam euh, congrès bi nga xam ne war nañ ko def ndax nag euh, réeréwu leen mbir ne PIT moom jée mën na teg tànkam ci di beesalaat ay kuréelam 2010 Amath ko moo jiite woon PIT waaye bi ñu defee congrès ca Thiès boobu la Maguette Thiam jël lenge ci loxoom 2016 la Samba si commencé jiite PIT comme def na mandaaw daaw juróomi waxtu wi jot na nag ñu waxtaan itam euh, congrès bi ak naka la ñuy fexe ba beesalaat kuréel yi. local yi dinañ ci bàyyi xel bu baax a baax te solo si local yi mooy local yi kenn mënu leen a teqale ak yeneen i élection yi ñëw. ba tax na effectivement nañ ci waxtaan bu baax a baax di ngeen dégg baatu PIT ni mu jàngatee local yi ak nan la gisee ne noonu lañ war a taxaw bu fekkee ne kay euh, fi ñu bokk ñun bëgg nañu ñu ci am ndam boo xam ne ndam wóor lay doon pour jàmm suñu réew mi nga ko di Samba si secrétaire général bu euh, PIT fii ak juróomi weer cité Djily Mbaye bu Yoff dina daal euh, soppi kar xar kanam am bu yees la ko waral nag mooy tali yi nekk foofe nag yëpp dinañ ko daal di defaraat projet bi nag bokk moomeel bu Yoff ñoom ñoo daal di financé ci ndimbal ci loo xamante ni nag toll na ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukki millions si suñu ay koppar doorteeb yooyu lekk liggéey nit ki démb la amoon ci teewaayu Odile Minkilaan ci ab diirub juróomi weex la ñuy amal liggéey yu tali yi nekk ca cité Djily mbay ca yoof mu nekk benn ci projet yi nga xamante ne soxal na lool meeru commune bi di Abdoulaye Diouf Sarr. Djily Mbaye dana nekk cité bu am solo boo xamante ñu ngi fay def tey voirie bi mais ñu ngi fiy pare def leneen si biir Yoff nag projet yi bëri na mën naa si lim rek quelques-uns fekk ñetti weer danañu inaugurer le stade de Yoff danañu aussi réaliser te fondation yi d'ailleurs commencé na jóg benn maison d'enregistrement pour tous les musiciens de Yoff ñu le pavage mais on est de la route de Ndenat notre projet bi koy def si wàllu littoral si wàllu géej. lu ëpp ñetti téeméeri millions ci suñu koppar la mairie bi daal di génnee ngir financer bile projet bu ñu sukkandikoo ci njiitalu feera bi di Mamadou Sène moom sax mu ngi dalal xel yi ci durée bi nga xamante ne moom lañu war a amal liggéey yi. ci wàllu xayma pour travaux yi parce que euh, travaux yi du entreprise bi rek dafa am entreprise ak euh, ingénieur boo xam ne dafa xarañ fu lu entreprise bi liggéey da koy contrôler donc euh, travaux 160 millions pour réhabiliter entièrement toute la voirie de cité Djily Mbaye ba pare defar trottoir yi defar assainissement bi entreprise bi bi mu signé 5 mois moo ci nekk mais dans 4 mois bëgg nañu travaux yi jeex. ndoxtelu liggéeyu tali yi nekk ca cité Djily Mbaye ca Yoff doon na lu neex lool askan wi Adja Marise mu jiite jigéen ñi. daf ñu ko digoon bu yàgg. mu nekk loo xam ne dañ ko soxla woon mais comme engagé woon na ko mu ñëw fii di ko tàmbali am nañ ci sant gën a baax gën a rafet ci diwaanu Sénégal lile moom mooy mbébétu maire Abdoulaye Diouf saax nee ne nag ngir lu ni mel mën a am faw ay liggéey yu am solo mu amal ko ci commune bi. Odile mi ngi lan cant la wàllum autonomisation jigéen ñi ak ndaw entrepreneur yi sa Thiès ba tax na nag euh, jëwriñ bi ñu dénk wàllum artisanat daal di maye ab tàggatoog euh, gën a yokk seen xarañteef jëm ci wàllum éducation lu ëpp nag euh, ci téeméer ak ñaar fukki bénéficiaire moom docteur Papa Amadou Ndiaye nag ne dina wéyal li nii mel ci yeneen yëpp yeneen yëpp dëkk ñu teewlu ko ak Babacar Ndaw Ah, toll nañu si téeméeri ndaw ak ñaar fukk ak ay jigéen ñu ngi doon yëngu di jóg daanu si wàllub entrepreneuriat jëwriñ bi yor wàllub artisanat docteur Pape Amadou Ndiaye jàpp nag ne gisoon na ne anam bi ñu war a gérer wàllub koppar si seen entreprise yooyu desoon na. leer na ñëpp jigéenu Sénégal jigéenu Thiès ay jàmbaar lañ waaye dafa am loo xamante ne dafa sooxe ci seen liggéey mooy lii ngeen doon def muy formation éducation financière ndax ku am ndaa toj ndaa doo bari ndaa yàgg naa leen koy wax defe naa éducation financière bi ba mu ñëwee yeeyaat na leen ci boole seen alal am waroo leen am leneen ñaari fan yoo xamante ne lépp lu jëm si wàllu gestion financière si biir entreprise xoolaat nañ ko tàggat bi ñu amal si biir chambre des métiers ba tax na nag ki nga xamante ne moom moo leen yombalal la formation bu financé leen ka jëruñ yor wàllu a jàpp na wàllu suivi dina leen si gunge. di leen ñaaxaat ne que yéen ngeen toll li ngeen def exemple la da bokk ndey bokk baay bokk ndey ak bokk baay boobu nag mu ma bëgg góor ñi seen ndàmb ñi seen doom yi ak seen rakk yi góor yi nañu leen jël inspiration ci yéen ci seen taxawaay bu rafet bi ba ñoom ñëpp bokk ndey bokk bàyyi pour benn intérêt muy intérêt Thiès mooy suñu intérêt. quartier bu ne si biir Thiès jël nañ la ak ay ndaw ak jigéen gi tey jii gënaat leen ñaax ñu mënal seen bopp waaye it jëwriñ bi ñaax ñaax na leen yàq bi moom nañ ko moytu. ndax loo leen am lekk ko loo am xewe ko loo leen am pasar pasaree ko li ngeen bëgg bëri la mu tëleen moo tax ma leen di gën a ñaax ci seen liggéey ngeen di gën a jàpp te di def da ngeen koy xeeb waaye alal la seen groupement seen kees yi yooyu yëpp alal bu bare bare la boo xamante ne soo leen booloo woon bokk ndey boole ko ñu encadré leen lu ma leer industrie yi gën a mag yéen jigéenu Thiès yi war ngeen ko mën a teg. Babacar Ndaw Thiès su FM. ca Saint-Louis moom foofu lu toll ci fanweeri ndaw ak i artisan ñoom la ñu daal di tàggat ci diirub euh, fukki fan ñu daal di jot nag seen i lijaasa si boobu lépp tàggatu nga xamante ni jëmoon na ci wàllum solaire photovoltaïque ak efficacité énergique ci rek teewaayub ci njàppandalub conseil communal bu jeunesse bu Ndar Géej autorité locale yi nag daal di rafetlu lu ni mel daal di taxaw ne dinañu gunge yooyu lekk ndaw Yves Dendeng ñoo ngi toll ci fanweeri ndaw ak i artisan yu commune bu Ndar ñu nga xamee ni jóge nañ leen tàggat ci diiru fukki fan ci lu soxal lii ñu duppee solaire voltaïque ak i efficacité énergétique te ñi nga xamee ni ñoo jiite conseil communal de la jeunesse de Saint-Louis ñoo ko daal di sumb mu di formation bu nga xamee ni agsi na ci waxtu bi biñ ko doon xaar bu ñu sukkandikoo ci kàddu kii di Aïda mbay mi nga xamee ni mooy njëkkeelu adjointe bu maire bu Ndar. xam ngeen ne Ndar yëpp mi ngi am ay lampadaires yu nga xam ne si soleil bi la ñuy tàkkee. te xëy na am na nu nun au niveau de la commune yeneen programme yu nga xam ni tamit dana am ay énergie solaire loolu nag ñu def ko fii tey jii 30 yooyu xale yi dañu lëkkaloo 15 yi ak conseil communal de la jeunesse yeneen 15 yi jóge ci chambre des métiers ñu am formation 10 jours yu nga xam ni centre de formation bu Sénégal Japon bi nekk dakaar ñoo ñëw doon leen former. kii nga xam ne nii moo jiitee conseil communal bu jeunesse bu Ndar di Adama kan Diallo moom mu daal di ci sukkandiku ngir ñaax waa mairie bu Ndar ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax yi leen ndaw ñu jóge tàggat. maa ngi lancé benn appel commune de saint yi ñu xool ndaw yooyu ñun conseil de la jeunesse dana ñuy fexe ba defal leen ay GIE de cinq maire bi tamit jàppaleen pour SOER yi nekk au niveau de la commune de Saint-Louis ndaw yooyu gérer entretien bi ñu insérer leen foofu pour ñu mën a gën a créer emploi mu di formation bi ñu daal di sumb ci jàppale ak i gunge ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk coopération allemande GIZ waaye itam ci ndimbalu programme énergie durable mi nga xam ne ni kii di Abdoulaye Guèye moom conseil technique la fa. parce que pour foog ñu préparer jeunes yi aussi ñu mën occuper niche d'emploi yi nga xamante ni daañu ko créer ji ci secteur boobu noonu. ñoom ñi lee ñu am nag yéene sumbaat i formation jàppale te gunge ndaw diwaan gi ci lépp lu waajub seeni wutum xëy ki doon jukkaa ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM Yves Tendeng ñu wax ci emplois des jeunes formation ak orientation scolaire nawle nag ñu daal di koy waxtaanee ca journée d' intégration yi amicale élèves ak étudiants yu bàyyeekoo ca Tataguine fii ci Ndakaaru nag doon amal seen njiit nag daal di dikkaat ci solos euh, bëccëg yooyee di muy wuyoo si turu Robert Ndour ay kàddoom mi ngi ko dénk ba Birama Ndiaye. bi li tax ñu def ko mooy. ndax war naa leen ko rappeler. ñoo ay ndaw ay élèves. jóge village lycée 129 élèves juróom benn euh, professeur ñoo leen gunge si ñu ñëw pour ñu mën a xam li fi nekk ak université nan lay doxee léegi nag si lañ ne euh, à ñu jéem a xool thème boo xam ne dina leen mën a intéressé dina leen mën a tax ñu xam lan moo leen di xaar bu ñu ñëwee université ak même bu ñuy nekk élève mën nañ dem def yeneen formation nga xam ne dinañ mën a dugg ci milieu professionnel loolu moo waral ñu choisir thème boobu ñu ne nañ ci waxtaan pour wax dëgg yàlla ñu mën leen may occasion ñu xam affaire bi nan lay demee et vraiment aussi on tenait à organiser cette activité pour que tous les étudiants de Mboye les élèves et les étudiants ñu mën a gis seen bopp ci amicale bi tamit parce que il faut le rappeler suñu objectif au-delà de tout c'est que ñu dem ba ku nekk ci bépp élève wala étudiant mën a sentir boppam ci amicale a tey jii nii ngeen tànn comme parrain Ibou Ndiaye mu nekk au conseil des collectivités territoriales mën nañu xam lan moo tax tey jii ngeen tànn Ibou Ndiaye jagleel ko bis comme ni ma ko doon waxee sànq rek euh, Ibou dafa yàgg nekk suñu collaborateur yàgg na di ñu jàppale ci ay activités donc tey jii buñ ko choisir pour mu jàppale ñu ci activités yi xëy na peut-être loolu dafa yàgg suñu diggante loolu yàgg nañ ko sekk donc euh, nekkul. la première fois daal donc tey jii euh, sama waa amical sax yenn saa yi dañ ma koy tooñee saa ñu waxee activité rek ma leen ah si ubbi rek lañ jëm c'est parce que tamit dama am si moom kóolute yaakaar si moom te moom tamit xam na loolu moo tax saa yi ma ko woowee ci affaire amicale bi wax dëgg fa yàlla de ci def lu mu mën ñu wax ci leneen ak jawriñ bi ñu dénk wàllum pétrole ak énergie daal di teewee ni kii démb ca ndarge ca comité régional développement du CRD jëm ci projet pétrolier ak gazier yi ci réewum Sénégal moom Sophie Gladima nag daal di dalal xel ñiy yëngu ci napp gi jëm rek ci seen njàkkare ñeel bu ñu waree rek exploiter gaz gi fii mu daal di taxawaat bu baax tamit ci lu jëm ci continue local bi nga xamante ni yenn ca ñaar teewee ndaje boobee daan nañu koy yëkka ay kàddoom Yves moo ko taataan. waaw di gërëm di sant euh, ñëpp ñi nga xam ne tey ñëwoon jàppale ñu ci waxtaan bi muy waxtaan boo xam ne tàmbali nañ ko depuis barke démb ndax dañ demoon seeti gox goxaan yi nga xam ne yaakaar nañ ñu activité pétrolière bi nar a ñëw si suñu réew nar na am loo xam ne xëj na am na ay jiixi jàkke yoo xam ne war nañ ko waxtaan waxtaani pour xool su amee naka lañ si mën a taxawee mais ci biir waxtaan mi ngi si gën a seetlu mooy comme Ndar goxu napp la wax boobu moo si gënoon euh, am solo mais dalal nañ seen xel ndaxte am na étude d'impact environnemental ba nga xam ne def nañ ko d'une part mais itam dañu seetlu itam si yeneen gox dëkk yi nga xam ne comme Norvège baat feneen fi nga xam ne amoon na exploitation pétrolière jënd dañu fa gën a bari sax ndaxte léegi dañuy jël ay oto mbaat euh, ay weñ di ko doon tëmbal si géej pour jën jëni ñëw côté yooyu donc tey bi nga xam ne plateforme pétrolière bi dina nar a xëcc jën yi nit ñi liñ si yaakaar foog nañ ne du demee noonu et tamit distance bi 60 kilomètres si biir géej quand même sunu nappkat yi daanu ñu dem foofu di si des mooy li ñu wax rek mooy affaire continuer local bi contenu local parce que dañu seetlu woon muy secteur pétrole moo njëkkoon am contenu local ñu ne nag léegi président dafa ne ñu yaatal ko yóbbu ko tous les secteurs extractifs donc comité interministériel am na dinañ tax man a sama naataango ministre de des mines ñu xool naka lañ koy yaatale parce que dañu gis ne responsable RSE bi daanul indi presque dara te yaakaar nañ ne sunu euh, ressources yi nga xam ne ñu ngi koy exploité war na gën a yokk koom-koomu réew bi mais tamit état bi war na si gën a gis boppam sénégalais yi war nañ si gën a gis seen bopp donc yaakaar nañ ne tey société yi nga xam ne dañ ko nar a Sénégal mu nar a nekk 51 pour cent de capitaux sénégalais mais tamit 80 pour cent yoo xam ne sénégalais ñoo si nar a liggéey dina yokk koom-koom réew mi suñu xoolee tey rek question yi ñu def fële si port bi ñu ngi am junni ak juróom-ñaar fukki nit yoo xam ne ñu ngi fay liggéey mu nekk loo xam ne lu impressionnant lu rafet. mi ngoog ñu wax ci bëccëg bi ñu doon màggal ci àdduna wërngal këpp ak wàllum biodiversité ca aire marine protégée bu Somone nag euh, ca Mbour moom moo daloon boobu lépp xew-xew thème bi nekk nag ñun ci saafara gi la ñu bokk jëm ci nature googee loolee nag euh, waral ñu daal di tànn AMP boobu fefe ca Somone nax rek lu mu am ci ay ngëneel ci wàllum alam gi ak wàllum euh, koom-koom loolee nag tax naa ba Sénégal daal di rek jëf ay jéego yu bari jëm ci daal di aar bu baax loolu lépp di aire marine protégée boobee ndéem nag nekkoon na wax ndoolu tamit ci jëwriñ bi ñu dénk wàllum environnement ak développement durable ñu daal di rek euh, delloo njukkal daal di jox ay raaya lauréat jëm ci conservation euh, biodiversité ak ressources association pour la gestion des ressources naturelles intégrée bu ak environnement daal di jël ñetteelu prix bi jëm rek ci aar bu baax lépp lu jëm ci wàllum biodiversité leeral dañ ciy teewlu Abdou Karim Sall jiite boobu lépp association ak Moustapha Sall di euh, di si kontaan parce que nit aussi bu demee bay liggéey li mu bëgg mooy ñu ne ko jaajëf donc ñun depuis une euh, trentaine d'années ñu ngi si secteur bi euh, di liggéey donc bu ñu demee ba journée yi mel nii am nga xam ne journée boo xam ne la lépp loo xam ne luy aar gàncax gi la luy aar alam gi la donc dañ ci ànd parce que Sénégal ñun ñëpp on est dépendant dépendant surtout si jën yi ndax tey Sénégal ñun ñëpp bu ñu imaginer Sénégal sans jën donc tey lan moo fi war a mën a am donc comme bu fekkee ne dañu gis nag ñoo xam ne dañuy jàppale dañu poussé dañu jàppale si li nga xam ne moom mooy aar li nga xam ne moom mooy suñu alam gi dañ ci koy rafetlu li nga xam ne moom mooy journée bi euh, li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe rek mooy accompagnement bi moom mooy gën a des parce que tey comme ni man association bi ñu yor association boo xam ne la ay ay jeunes la yoo xam ne ñoom ñoo def seen ay sacrifice def def benn volaawu di jéem a seet li nga xam ne moom mooy développé Joal lépp loo xam dafa wàllu jëm si wàllu récif artificiel lépp loo xam dafa jëm si wàllu paañ comme ni ko soxna si waxee léegi lépp loo xam dafa jëm si wàllu ay suivi tortue donc lépp loo xam ne daal jàpp nañu ne dañuy jëmbat lépp loo xam ne garab si école yi reen def nañu presque plus de 400 hectares de mangrove yoo xam ne dañ ko reboiser donc lépp lu si ëpp dañuy dem ak suñu ay pro euh, euh, propre ressource donc tey bu ñu gisee état naxa suñu gannaaw dañu jàppale dafay nekk loo xam dañ siy kontaan lool. ab seminaire didactique daan nañu koy ubbi gaaw gi ca Tambacounda rek ci yénépp association national professeur anglais yi dal ci lëkkaloo ak ambassade bu réewum États-Unis fii ci réew mi Abdou Niane moom moo jiite boobu lépp association mu daal dikkaat ci mbir moomee ñu teewlu kook Boubacar Boubacar Tamba. Euh, activité bi nag dañ koy def chaque année. Euh, waaye duñ ko def dakaar dañ koy def ci région yi waaye duñ ko def Dakar parce que dañoo yàpp ne li ñuy def Dakar bëri na moo tax chaque année dañuy jël tànnab région rek boo xam ne gis nañ ne xëy na suñu mbir xaw na faa sooxee géej nañ fa ñu daal di dem euh, tàggat enseignants yi ci ni ñuy jàngale anglais. Euh, li tax ñu jël Tamba dañu gis ne séminaire bi mosu fee am en plus li ñuy wax branche Tamba bi. dafa xaw a nelaw ñu bëggoon nag mu ñu profité ci occasion bi euh, mu nekk genre déclic ba branche Tamba bi gën a jóg ba mën a diirante mbag mel ni Louga yu mel ni Diourbel yu mel ni Thiès yu mel ni dakaar te gëm naa ne mën nañ ko te it am nañ yaakaar ne ñoom dinañ ci taxaw. lan ngeen di waxtaanee maanaam thème bi. waaw thème bi mooy nan la ñu mën a suqalee suñu élèves yi ba li ñuy jàng mën a méngoog jamono. parce que njàngale booy former élève dafa war a nekk loo xam ne mën na koy jëriñ ëllëg. ci lu muy liggéey ndax booy former nit ki toujours dañuy wax ne Sénégal suñu problème mooy dañuy dañuy jàngale nit ki dañuy jàngal nit ki loo xam ne du ko jëriñ ëllëg ci fu muy liggéeyee. Euh, maintenant pour faire maintenant cette relation enseignement travail moo tax lii tey euh, ñu am euh, séminaire yu mel nii. comme ça ñu wan jàngalekat yi ne war ngaa mën a jàngal sa élève loo xam ne anglais la waaye naam mën na ko jëriñ suba ci li muy liggéey eh, te it boo xoolee loi it tëgg njàngale Sénégal boo demee ci biir loi lu mel ni loi d'orientation li ñu lay njëkk a wax mooy élève bi dañ koy wan loo xam ne mun njëriñam la ëllëg ci liggéeyam ak eh, ci doxalinu àddunaam ak lépp mën a taxaw li mu jàngoon mën koo jëriñ ca Kaolack euh, gouvernement scolaire bu lycée Valdiodio Ndiaye ñoom ñoo amal bëccëg culturel ak intégration daal di dajale élèves yu lycée bu Ndofane ak bu Valdiodio Ndiaye ak Foundiougne ka ñu bàyyilee bëccëg googee di Amadou Diallo di directeur programme d'appui modernisation administration ca jëruñ bi ñu dénk wàllum fonction publique daal di prox ndolu ci loolee daal di woo élèves yooyee ñu daal di jëfandikoo lépp lu jëm ci xarala yu yees yi rek ngir gën a mën a yokk seen euh, xam moom Amadou Diallo euh, directeur programme boobee ñu ko teewlu kook kamara Camara. ma amoon mbégte ñu parrainé ma journée culturelle yi nga xam tey ji mooy lycée Valdiodio Ndiaye bu bu Kaolack mooy journée yu am solo parce que journée yi ñuy wax c'est des journées interculturelles dajale fii waa Ndofa ak waa Foundiougne di wane ne vraiment réew mi benn bopp la te ni koo xar ñaar que ngay séeréer di wolof di joolaa ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ba école nag nekk ne bërëb boo xam ne bërëb waaye sax sakkaayu xam-xam la moo tax tey ji maa ngi rafetlu initiative bi bi proviseur jël ànd ci aussi ak les professeurs ak ak gouvernement scolaire pour wane ni réew mi benn bopp la di encore soññi xale yi ci affaire internet tey ji réew mi fi mu toll nii adduna bi sax laay wax internet mi ngi bëgg yàq jikko yi réew mi mi xam ne tey ji ñoo dend barki démb rek benn fausse information tax na ba réew mi xawoon yëngatu la ka fay boutique rey fay doomu aadama ci loo xam ne dara du ci dëgg donc ma invité xale yi nañu xam nu ñu ko jëfandikoo à bon escient tey ji vraiment ko di invité vraiment élèves kuy jàng na ngay nekk ndongo daara ndongo daara bu ñu waxee nag moom mooy maanaam fonk sa enseignant fonk sa professeur ñun kat fii leen jaar ci lycée bi jàngee fi tekkee fi comme comme comme cadre yu bëri loolu bu ñu ko amee ñu ngi koy jaajëfee ñu xam ne tey moom mooy suñu professeur yi nga xam ne tey ñoom ñoom lañ doon jàngale vraiment tey bu ñu encore doo leen jukkal par nañu journée yi leen sant leen gërëm dina si ñaanal gudd fan ak fekkee seen njëriñ doom ci loolee ak proviseur lycée boobee di Birame Faye moom daal dina rafetlu lu mel jàpp ne nag lii porox ndool la woon ne boo xamante ni tax nañu daal di gën a rataxal diggante professeur ak élèves yi euh, Birame Faye proviseur bu lycée Valdiodio Ndiaye bu Kaolack ci micro Mamadou Camara. dañoo organiser li ñu naan journée culturelle ak d'intégration bu gouvernement scolaire ñun nag. balaa ñuy waaj journée boobu dañoo ñaanoon waa Foundiougne ñu ñëw lëkkalook ñun pour ndax journée bi gën a neex ak waa Ndofane ñoom itam ñëw nañu ba ñëwee itam gis nañ ci xale yi loo xam ne itam foofu ñu ko ci ñoom sax parce que won nañu ay mën-mën ak ay xalaat yoo xam ne mën na jëmale liise yi ci kanam te won nañu parent yi itam la nga xam ne itam loolu lañu mën ci wàllu dundal lycée parce que loolu day fekk daa bokk ci loo xam ne mooy dundal lycée bi itam ndax bien que moom dañuy jàng waaye ci biir njàng moom itam lëkkaloog ñeneen pour ku ne indi expérience atam expérience am mën na tax aussi itam vraiment yëf yi jëm ci kanam mi ngoog eh, ñu daal di wax eh, ci tàggat yaram ñaari xët lay doon bi ci jiitu rek eh, di ni ki tey ci dibeer gi ñaar fukki fan ñett ci weeru mai la ñuy door coupe d' afrique beach soccer di football gi ñuy football ci plage gi Sénégal di ko dalloo mu war cee laale sax ak Uganda ñu jàpp rek ni ca mujjanteel ga ñaar ñi nga xamante ni ñoo qualifié final ñoom ñooy dem ca coupe du monde ga ginnaaw ba ñu leen dooree nag ci coupe CAF ci quart de yi ca ale ba benn bal ci dara jaraaf bu rek daal di dab xoolaat ngir mu gën a mën a am yaakaar dem ca demi finale yee ginnaaw euh, tey jii nag dinañu dalal ca stade Lat bu Thiès waa Coton Sport bu Cameroun euh, match bi nag bu ñeenti waxtu jotee lay doon kon léegi-léegi ñu bàyyi leen ak Josette Kale mu dikk ak yenn ci rétrospective xew-xew yi gënoon fës ci ay bés yi ñu génn dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM ci gaawo gi amal nañu bésub ñaan ak fàttaliku jëm ci fukk ak ñetti nit yi ñàkkoon seen bakken ci manifestation yi amoon ci mars gi ñu génn bile bisub ñaan nga xamante ni mouvement pour la défense de la démocratie ñoo ko samp ca Bignona nemeeku nañ fa teewaayu leader politique yu bëre ak it yenn ci ay membres yu société civile bi benn Michel Kanfoudi. ñaan yi amaloon nañ ko fii ah, ca Bignona ci biir ah, ñaan yooyu nga xamante ni amal nañ ko ñu ñaanal ñi nga xamante ni ah, ñoom ñooy. fukk ak ñetti ndaw yi nga xam ni daan nañ ci manifestation yu ñu daan amal ngir euh, jàppale kii di euh, député euh, Ousmane Sonko ñaan yi nag kii nga xam ni moom moo fi toogal xalif général élage Hadj Fa Ousmane Bodian moom moo ko jiite gannaaw loolu nag ñu amal foofu ay déclaration ku ci nekk ci leader yi nga xamante ni ñoom ñoo defoon déplacement bi fii ci biir bi ñoo na bokk ci ñooñu nag député Ousmane Sonko kii nga xam xamante ni mooy député euh, Cheikh Bara Dolly député Aïda Mbodj député euh, kii di Mame Diarra Fam ak yeneen activiste waaye nag ganaaw ñaan gi ñi nga xamante ni ñooy kilifa yu ñëw fii ci Ziguinchor bokk ci MDD daal nañuy xaatim euh, benn déggoo ci déggoo yooyu nag bokk na ci ponk yi may lim nee nañu dinañu def ku ci nekk war nga def sa kéemtulaay kattan ngir bañ a xaajale euh, réew mi ku ci nekk tamit war nga def sa kéemtulaay kattan euh, ngir euh, ndaw ñi nga xamante ni ñoom ñoo daanu ci manifestation yooyu seen yaakaar bu ñu doon wuti ci loolu bu mu tas wax nañu tamit ni dinañu def seen kéemtulaay kattan ngir booloo seen i doole xàccandoo duurandoo itam jàppale ñi nga xamante ni ba léegi ñu ngi ci biir kaso te ñu jàppoon leen ci manifestation yooyu ñu def Euh, ngir ñu euh, génnee leen leneen li nga xamante ni tamit yokk nañ ko ci euh, ponk yi nga xam ni moom la ñu xaatim bokk na ci li nga xamante ni moom mooy xeex bu ñu ko ñëwee ci nguur gi ñu bañ a xeex lii di démocratie fii ci mim réew donc li mooy ponk yu gën a fës ci journée ñaan boobu la. coowal suuf ca Dougar daanaka ayu bës a ngi population bi di xeex foofee ñu nekk ci jamono yi ci ab collectif bi jóg nag ngir aar moomeelu Dougar ñooy wéyal xeex bi ngir ñu delloo leen lu toll ci juróom-ñaar fukk ak ñaar ci ay hectares yi suuf yoo xamante ni ñu ngi ci loxowu société marocaine bi ñuy duppee PICOP ci noonee sax ñu ci woowaale njiitum réew mi Alioune fay di kenn ci collectif bu cadre d'échange de réflexion et d'action ngir développement wu Dougar. waa PICOP doon sàkk suuf le président de la république d'alors Ablaye Wade jox leen foofu une superficie de quatre-vingts hectares te bi mu leen koy jox dafa ànd ak rapport de présentation ak un décret présidentiel. alors ñu dem ba si foofu ñu ne léegi foofu arrangé wu leen mais booy laajaat feneen da war a dellu si président ne ko ah, fi nga ma joxoon arrangé wu ma joxaat ma feneen président defaat beneen décret jox la ko. bañu ñu le projet mais na tegu si yoon investissement moom mu jóge si terrain yi. way laa bu fekkee ne mënul jóge au moins mu woote ñu waxtaan pour ko xamante ne da nga bëgg solution am non seulement ils ont ajourné la rencontre mais ils de employés dans le site alors ah, loolu nag la ñuy wax ne nun mënuñu ko nangu lii ce qui est silence des autorités ñu fàttali leen ni ñaar fukk ak ñaar ci ay ndaw yi nga xamante ni dañu leen tegoon loxo ginnaaw jaamaarloo yi amoon seen digg takk der yi ci dibeer gi ñu génn ñoom def nañ leen sous mandat de dépôt élection locale yu janvier 2022 Barthélémy Diaz samp ndëndëm ngir jiite mairie bu ndakaaru waaye moom mi di maire bu Mermoz Sacré-Cœur mooy ñaaw ñaawlu nag xoxatal gi wala sax li ñuy tiyee koppar gi nga xamante ni dañ ko war a jox commune am ci noonee muy woowaale ku jege ñu jóg taxaw temb Amadou mustapha Dieng. ñi ngi koy xoxatal ñi ngi koy njatt diite koppar gi nga waroon jébbal mairie moo Sacré-Cœur ngir moo liggéey si loolu lépp ngir faagaagal ko moom Barthélémy Diaz loolu la wax muy xamle ne lu ni mel nag terewul mu samp ndëndëm doon candidat mairie Ndakaaru ci élection yi di ñëw. parce que damaa fas yéene candidat te Macky Sall ma tere candidat. parce que dañu gisul ana réew ñi juddoo fa dëgg fa yaroo fa. saay bu amee lu mu namm ci réew ñu ne ko soo àndulee ak président Macky Sall doo bokk ànduma ak Macky Sall tey ànduma ak Macky ëllëg te incha allah maay bokk ba mu neex ba mu sax sax. Barthélémy Dias di xam ne ne ci koppar goo xam ne woo nañ ko ko jébbal diggante ay taxes yoo xam ne maire bi moo ko waroon am waaye ba léegi France dalu ko den gis dara. c'est le centre fiscal de Dakar Bourguiba. moo ñu yónnee tableau bi. ne yan commune de Mermoz sacré et cet argent est disponible pour vous pour 2020. tey nag ñu may bëgg xañ lu tax moom mu daal di fokkati li di mbalit bi ci loxo ville de Dakar tey nag nga da ngay jëlaat loolu et tu le renvoies à la ville de Dakar. ci gëneen fànn mu yëgle sax am na waa Cour des comptes yu ñëw ngir lëmmëj ni mu yoree mairie Mermoz Sacré-Cœur li ko ci reetaanloo nag moo di fukki at ak ñaar ngi nii mu nekk ci mairie bi te kenn mosu fa sànkam tànkam. ñaawlu rek mooy dañu bàyyi ba suma mandat bi jeex. ba may waaj a ñëw di liggéey leneen ñu dañu ñëw audité ma ne leen bisimilah. yaa leen xam cour d'appel yaa leen xam cour des comptes yaa leen xam ban cour ngeen di woo bu ci yàlla àndee incha di dinañ candidat mairie de Dakar. Barthélémy Dias di xam ne ne découpage administratif maanaam daggati bi ngi daggati yenn ci commune yi dalee ko fële ca Rufisque te ñuy rumandaat naan Dakar dina ci bokk li leen lépp ay xeetu doxalin la ngir faagaagal bépp bëgg-bëgg boo xam ne ku jéggi am nañu ko ci élection yi di ñëw. ci talaata gi amal nañu ca Paris ab sommet boo xamante ni dañuy xool nu ñuy def ba suqaliwaat koom-koomu Afrique njiitum réew mi Macky Sall mooy sàkk ñu indi ay coppite jaarale ko ci tirage spéciaux yi ngir mën a doolelaat koom-koomu Afrique ngir mën a fay li ñu ameel réewu tugal yi ba mën a sëgg noonee ci lu jëm ci wàllu liggéeyu ndaw yi. immigration irrégulière lu ëpp juróom benn junni ci ay migrants ñoo dugg ci enclave espagnole bi ñuy duppee Ceuta nekkee ci bët gànnaaru Maroc lile mu di mbir moo xamante ni kenn mësu koo gis leeral yi ak Oumar Baldé. lu tolloog euh, juróom benn junni nit ñoo jóge fii ci Maroc. dugg ci Espagne at yi yëpp nag pour ñu dugg da doon métti trop donc si ñooñu dugg nag ñi ñu jógee Afrique nag ah, ñàkkul ni Sénégalais yi ñu ngi si instant yi nii amul benn kenn koo xamante nii ci wàllu kilifa yi toog firnde na loolu ba loolu xewet li ñu gis mooy boo doxantoo si mbedd Maroc yi immigrants yi doon taxaw si mbedd yëpp instant yi kenn gisatu leen li tax mu mu xew sax la ñuy wax mooy Maroc ak Espagne fan yi déggoowuñu bu baax ndaxte Maroc dafa mere Espagne ci li Espagne accueillir nga xamante ni mooy Brahim Ghali front Polisario front Polisario ba nga xamante ni moom dafay revendiquer Sahara occidental alors que Maroc mu ngi jàpp ni loolu ci province am yi la donc front Polisario boobu seen chef moo feebar Espagne accueillir ko li ko Espagne accueillir nag Maroc loolu na gis ni warul woon nekk ci diggu benn ci ayu bés bi ñoom ñee di migrants yi dem nañ nag ba toll ci juróom-ñetti junni ñi dugg ci biir Ceuta waaye autorité espagnole yi xamle nañ ni jot nañoo delloo lim gu takku ci ñoom ci coow li dox diggante Israël ak Palestine tax na ba fii ci Sénégal ñu nemmeeku lim gu takku ci ay nit wàccoon ci mbedd mi lu si mel ni ay nitu dine ay politique ak it ay activiste ñoom ñëpp dem wuyu ji ci wootewu alliance nationale pour la cause palestinienne ñoo àndandoo ñaawlu li ñuy duppee génocide bi nga xamante ni Israël mu ngi koy def ci ñi yeewoo ca Palestine Babacar Samb. raayëpp réewum Palestine doon lu fasoon lool ci ajuma ji foofee ca place de l'obélisque. labbayka ya shuhada al aqsa. askanub Sénégal daal jóg ngir jàppale seen mbokki jullit. labbayka ya Palestine. jullit ñi jug leen wàllu aqsa moo ngi lakk. mu di ñuy yëngu ci wàllum diine politique di ndaw ba ci jigéen ñépp a boole seen ëpp doole daal di dajaloo ngir ñaawlu nooteel gi nga xamante ni ñu ngi koy teg ci réewum Palestine. Israel! imaam Ahmed Dame Ndiaye njiital imaam yi ak waarekat yu Sénégal mooy kii yore seen kàddu. wax ja yàlla waxoon ci alquran ne wala tayinu fi ibtigaa'il bu leen xeeb seen bopp ci dal ci kaw noonu. lépp ñaar téeméer fanweeri doomi Palestine ñu daal di leen di faat gën kaa néew juróom-benn fukki di ay tuut tànk soxna Xadijatu Saw daal di ci turu jigéen ñi di ñaawlu li ni mel. ndaw ñi ba ci société civile itam daal di teewee bi manifesté manifester ñoom ñëpp daanaka benn kàddu lañu ñu daal di yëkkati lu Israël di teg ci kaw Palestine warul benn yoon ñu dem ba koy méngaleex crime contre l'humanité te dinañ daal di taxaw tem ngir xeex li ni mel. mais nous ne serons jamais complices de réewum Sénégal askan bi daal di koy wane ci aljuma ji ca place de l'Obélisque ngir jàppale seen mbokki Palestine ñu ànd Thiès lu ëpp ñeent fukki kuréel ñoom ñëpp ci ginnaaw alliance musulmane pour la cause palestinienne. dëgg bi mooy Israël dafay noot Palestine. activiste bi di Guy Marius Sagna moom di ñaawlu li muy woowee tolloole bi nga xamante ni nee na daal nguurub Sénégal mu ngi koy daal di tolloole ci diggante Israël ak Palestine te li nu mel warul benn yoon. nekk état du Sénégal bëgg a Palestine ak Israël loolu duñ ko fi nangu tey duñ ko fi nangu ëllëg. te ci bile manifester kii di ambassadeur bu Palestine Safwat Ibrahim daal dina koy teewe itam. fii la ñuy ndax képpee jotaayu xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fi ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Abdoulaye Diop. ñu ngi koy euh, jaajëfal euh, moom euh, Josette Kelly jaajëfal seen cuun bi ma àndaloon ci xarala gi Abdoulaye mu nekkoon ci kàddu gi ñu leen di ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam ci Sud FM seen rajo jërë ngeen jëf.